lecture du droit dafa am Sénégal fii dañ nit ñi dañuy jàng xam infraction yi ñoom ils n'ont qu'à faire attention et rester là-bas et essayer de d'avoir un jugement et de se de se défendre mm-hmm. et que les avocats qui les défendent là essaient de les défendre mais xam nga quand un avocat a un penchant politique mm-hmm. il veut évoquer le droit et l'intérêt politique il n'acceptera jamais de dire la vérité tout à fait du ko nangu mm-hmm. loolu nag moo dal boy yi parce que boy c'est seen làmmiñ rëy na mais jànguñ dara xamuñ dara booy gisee dem nga xam ne xamuñu xamuñ dara de <laughs> gars yi dañ koy nëbbu gars yi ñun buñ taxawee une péto ñom séeréer ça samay professeurs xamante nañ xamante nañ bu ñu taxee une péto hmm. da ngay dégg ñaan génn ci waaye major noppi génn ci waaw nopp ci génn ci loolu lañ may ngi recommandé chaque fois major génn ci yaa ñuy yàqal yaa ñuy nangam parce que tout simplement dañuy def loo boy yi loo xam ne du noonu gisoo yarax bi gauche yi lakkee affaire mais dañ leen a topp par des acteurs dañ leen a topp gis nga bi ñuy laalee rek ba affaire bi am la leen gars yi commencé drone yi ak surveillance yi commencé jël en piste bi ñu leen ko notifié booy dañoo wàcc biñ ñu leen notifié ba wan leen ne dañ leen a gis ba kër gi dugg. Mm. mais dañoo jëwru dañoo wax lépp ils ont tout dit ils ont tout dit te tey yéen ci biti nii demoon nañ ba leen di brouillé naa leen dañ ko inventé Antoine john dem Fomane c'est pas vrai. pour vous dire aux Sénégalais que dans les rues de Dakar dans les rues toutes les rues de Dakar il y a ce qu'on appelle des satellites à infrarouge. Mm-hmm. yoo xam ne dañuy jël voie bi boo ne réel rek. enregistrement bi la ñuy xool relais bi parce que y a des installations relais relais bi la ñuy xool ñu lay topp ba fa nga dëkk et puis Sénégal yi sont pas intelligents demal demal casino bi nekk avance daw hmm. demal casino bi nekk avance daw man kër sama portable laa fàtte nii dama ko fàtte rek teg nii hmm. di bouger di jënd fromage fi ko bàyyi mais bi ma demee ci gars yi dañu ma foo taxawoon ma wax leen mais dañoo arrière ba foofu caméra mais ça il m'a dit que si vous gis waa ji jël ko waa ji ko jël nii heureusement benn surveillant ko jël def ko ci poche am. dinañ waxul dara mais mi ngi ko def ci poche am dafa jël ne Modou Ndiaye ko jël c'est-à-dire le monde a tellement évolué. Les gars, nu mu jëm moom mais dafa delloo sama portable léegi gis nga. la police sénégalaise fait partie des polices les plus renseignées. gis nga pour ceux qui ne savent pas. police boolewuñu dara ak coow. Ah, ah. gis nga police fi ne nii eh, dañuy écouter tout le monde même ñun sax des fois ñu écouté la xool na nga major day balance waaye day jaay c'est-à-dire ils écoutent tout le monde dans ce pays et puis nous avons des balayages nous avons des écoutes à balayage xam nga lan la hmm. boo toog yow boo taxawee ci biti nii man rayon de cinquante mille mën nañ la écouté sans ñu branché la fenn duñ la branché fenn gis nga sa salle bi mën nañ fi teg benn pièce vingt cinq boo xam ne fii lañ koy dëpp taxaw fele ci angle koñ la. Mm. di di xol li ngeen di wax li ngeen di def li ngeen di donc donc les policiers ne ne na boolewuñu dara ak coow. Mm. l' essentiel boo li ngay def ñoom dana la top ba ne taral ne la saa waay fii nga ko defee kii nga àndal kii nga naan ñoom ñëpp sont écoutés dañ leen di écouté par aw par B. renseignement do ya a des renseignements et puis la police a des mat a du matériel sophistiqué des gosses ingénieurs yu jang ni ñom yo xamné ay ingénieurs lañ ay commissaires yu ingénieurs ak ay adjudants ingénieurs. Mm. am seen lijaasa am maîtrise ki ingénieur laa la wax kay. jox ji jeex na ba monsieur monsieur Kandji waxoo tamit politique politique ak yi pour ñu bañ wax tamit. non politique bu ñu wax de. Ah. c'est-à-dire yow boo koy def da ñeme. Ah. da wax li loi bi wax ba pare wax ko ak fi kenn mënu la dara. Macky Sall la fi jóge bu la neexee nga ne la fi jóge dafa fi dara bu la neexee. mais bu neexee Alioune Kandji aussi mu ne Macky Sall a ngi inauguré fu ne te il réceptionne les investissements. te am na ci droit te am na ci droit. noonu rek ngay joué man dafa am kii ana boo ma ko permettre lu ma jaaxal temps yi dama ko seetlu. Euh,